di ziar bu baax bay naa géy ah géy naa naka campagne bi nag ndakaar wala fan ngay campagne yi yow ñu ngi ñu ngi Dakar di campagne di euh, appuyer Abbas au niveau du département. Mm-hmm. yenn jours yi yenn jours yi tam ñu ngi def ay porte port porte dans commune dugg ci kër yi wax ak électeurs yi expliquer leen la pourquoi ñu war a voter la mm-hmm. liste Pastef. Mm-hmm. Mm. ah sa commune sax la ñuy njëkkee balaa ñuy dikk seen caravane yi ak campagne bi ak yeneen actualité yi dafa am lu fa sànq wax nga ma ko mais bi ma gisee video yi peut-être loolu mooy ay preuve peut-être topp dinañu ko illustrer mooy au niveau de Mermoz Sacré-Cœur daa am fa xew seen diggante Gaye Barthélemy est-ce que vidéo yi ñu gis lu wér la ci ni dañuy yebal ay nervi yi ñuy ñëw di intimider nit ñi. waaw xam nga premier jour campagne bi euh, département Dakar ñaari commune la doon def. Mhm. muy Fann Point Amitié ak Mermoz sacré kër ñu def premier jour campagne bi def Fann Point Amitié ñoom Mimosari Kër Mimosari Kër nag sa la commune. Mhm. mais y a des yi nekk ci biir kon Baobab Karak Amitié 3 Sacré Cœur Cité Kër Gorgui ni mel ñu def Mimosari Kër dugg Baobab def romb dem ci yoon dañu attaqué sax fa la ñu njëkk attaqué si même jour dem nañ suñu kër ne dañuy taal suñu kër. indi fa boucan affaire suñu kër yow ah? suñu kër waaw bi ma dëkk man ak sama suñu famille ma dëkk. Ah, la maison familiale waaw. Eh, dañuy taal kër gi indi fa boucan affaire yooyu par la suite dañoo woo téléphone wax ma situation bi actuelle waa koñ bi bëri tam woo ma ñaan ma ne ma carrément ne répondez pas à la violence parce que yàgg waa ji benn boo xooleen yoon moom dafa tojale il est en phase ascend euh, descendante du moins mhm. yow tu es en phase euh, ascendante kon du yàgg moom fexe ko moytu le maximum et que boo fi nekkee di jàppanteeg moom muy wut nañ la gaañ mën nañ gaañ sa waa kër mën nañ ñoo waa koñ mhm. waxee lu ma ne dëgg wax tamit te nekkutul man kese quoi bëri na ñi nga xam ne tey ñi ngi am ci yow yaakaar ak ñu mel noonu ma décidé sax quitté mhm. mhm. pour bëgg jàmm rek mais malheureusement baobab Pastef moo fa majoritaire te ñi dëkk ñi dëkk baobab yëpp mënuñu jógee baobab te ba bu ñu nee ñu ñun élection yi passé on a 63 pour cent des électorat waaw ah, boobu kon xam nga ñoo fa majoritaire. léegi nag tey jii nii rek dañoo woo parce que keroog njëkkoon na am benn booy bu bu bu xam ne patriote la. daf may soutenir bu ñu attaqué ba gaañ ko jot naa yónnee image yi ki xaw ma ndax dinañ ko teg. mais tey dañ defaat seen ful dem kër booy bi di fay zëmbale di saaga ay ñu barte la ñuy topp ak kërëb li may inter ki may interpellé mooy ministre de l' intérieur. Mhm. parce que dafa am benn situation bu doy waar bu prévoir bu prévoir instant ba ba wax fi mu toll nii dañuy semer la bari Barthélemy Dias jël na ay bandi bu bëri jël leen parqué leen ci mairie bi ñu ne fa di tere nag ay jaasi di xëñ ni ci jàmm kenn sañtul génn kenn sañtul kii et que loolu mënul wëy mhm. fii wag la di xaw na sori jege na jegewul moo ñu toog nag terreur boobu ko ñu di di di nekk biir booba mhm. ñu koy seetaan moo tax damay interpellé le ministre de l'intérieur qu'il prenne ses responsabilités mu dem mairie booba mu déloger bandi yi fa nekk ba pare mu ne sécurité bay biir booba parce que boo yooyu dañ fay nekk di xoolaale kër yi xool fu ñu mën a agressé ku mel noonu. Mhm. am nañu fa nekk ay jigéen dañuy xëy fajar dem liggéey loolu yëpp ñu ngi ma koy wax situation bu moo nekk bi baax te loolu mënul wëy. Mhm. moo tax ñu ngi interpellé le ministre de l' intérieur li Barth bëgg semé du du du te nag man moom sama ngor mayutuma tamit ma nekk ci nekk ci jàmm sama waa koñ di nekk ci problème ma topp yeneen saraat mhm. su waree continuer yow yaa leen ko yombalal parce que nit bu domicilié fenn wala mu résider fa dëkk fa foofu la am pour des raisons politiques yow nga génn dem alors que foofu mooy sa base politique est-ce que nekkul ni tey jii sa dem boobu moo jur lii. Ah. mais bu doon sa saasa. vidéo yi ngeen yor ak yor da ngeen ko jël yóbbu ci parce que nit du fajal boppam yóbbu ko ci takk der yi ñu xool vidéo yi bu buñ ko authentifié ña yor vidéo yi wala ñi def loolu di leen fekk jël leen mais yow bu dee da gàddaay dem aussi loolu da naan comme def nañ ko xab xupp nañ bay naa mu daw léegi. dañuy jàpp ne lu jaadu la quoi. waaw loolu moo tax ma ne la mënul wéy. man bi mu koy def defal ma ko du du sama propre initiative waaye dama nekk ak ay nit te tamit moo doyloo sa xel kese wala li nga bëgg rek ngay def. Mhm. mu nekk man ma am ma nekk si samay voisins ma si ak ñoom jàmm ñu respecté ma wekk ma am fuñ ma teg buñ ma leen ni pour man question rek deux semaines trois semaines maximum war naa leen ko mën a may. ne serait-ce que jàmm bi ma sekk ak ñoom quoi ay ka tamit mën ñu mën a gérer seen quiétude parce que keroog bi ñu ñëw kër gi fas yi minuit passé. sa kër yow. waaw. Mhm. bi ñu ñëwee dañoo yeewaa koñ bi yëpp. ne dañuy taal kër gi. waaw waa koñ bi génn wax ak ñoom kërëb kërëb léegi pour bañ a situation pour bañ mu perdurer moo tax ma ci nangu def sacrifice boobu noonu jóge boobam parce que tamit suma combat du combat du ma du ma Barthélémy Dias quoi ñun on a un projet à à à dérouler et on a besoin de l' assemblée nationale en majorité loolu la ñuy mooy loolu mooy combat lii tey la lii tey benn booy bu tudd Dame c'est un patriote boo xam ne daf may soutenir moom lañ jëm këram gis nga fa la nekk génnee jaaseem di saaga ne booy génn ki mel noonu. te avant-hier attaqué nañ booy ba gaañ ko tey ñu demaat këram di ko xuppaat. ñu ngi noonu boo ko di ngeen dégg saaga yi. muy saaga waaw saaga tax moo tax ñu bàyyi ko nii. waaw parce que ay saaga aussi doo ko bàyyi muy jàll télé. lii mënul wéy xam ngeen. moo tax maa ngi saisir le ministre de l'intérieur man man ku ma xam-xam ne yàgg naa sacrifice sama bopp pour Sénégal moo tax bi ma ko gars yi ñaanee nekkul nekkul problème si man man ma xam mais est-ce que jël jël vidéo yi dem yóbbu ko porter plainte. man man de façon personnelle muy ñi muy liggéey dinañ kii nga xam ne ñu ngi woo ay nit dina laaj ndax xam nañ ma wala woo ay nit pour ñu ma ak yooyu yëpp def naa sama déposition police porter man. Mhm. mais lii kii beneen booy la. Mhm. te tamit patriote bëri nañ trop biir boobu. nous sommes majoritaires là-bas. ñëpp mu bëggandoo dem parce que lii buñ ko bàyyee mën na dem ba sax ñi rendi seen biir ci quartier bi non mais fa lañ mujjee ah parce leen wax nañu ragaluñ ko dañu déjà mort ñun suñu combat ak sénégalais yi la éveiller conscience yi faire leen comprendre que ne le projet là c'est le projet mais est-ce que nekkul yaa prêté le flanc balaa may jox saa parce que yaa fi génnoon def vidéo ne bu fi lee ñu lakk këram bu fi laalee kenn est-ce kàddu yooyu nga doon yëkkati aussi ak sa page Facebook man moom dama lay suivre bu baax des fois même tur bi ko gars yi di wooye nii ci yow la jóge <laughs> yooyu est-ce que nekkul ni <laughs> yow tamit li ma ko wax c'est très clair eh. et que par rapport à ces propos yu mu tenir hmm. ku fi ne Sonko ma def la lu nangantaan dem hmm. loolu la wax hmm. ñu ne ko ma ne ko benn patriote boo fi xuri sa kër dinañ ko taxal te loolu moom sax xam na ko gis nga lii muy def nii day simb rek mais Barthélémy Dias leer noo xam ne billaay walaay taala ëpp ñu fit ëpp ñu sañ-sañ te lu mu ñu sañ a def benn sañ nañ ko def fukk barke yàlla moom li muy def nii hmm. amul fitu affiché wu day jël xaalisam fay ay nit ñu koy defal man bay naa gi su may aji si Barthélémy Dias même bu ma ànd ay nit man maa jiit ci kanam du ma laaxutu mais dañ nekk ci état de droit nekk dëkk xam ne yoon daf fi daf fi am hmm. moo tax on a sax même préfet prendre du retrait prendre euh, du pour ana pour xool nan euh, suñu les autorités prennent les responsabilités faire faire dañu lor mais s'il n'arrive pas à le faire ñun on va lui répondre si mu bëgg parce que xam na ne ragaluñ ko barke Sëñ Tuubaa ragaluñ ko te li muy def ci violence dàquñu ko ñun on se connaît très bien moom xam na moom bu baax xam naa ko bu baax fi mu toll nii dafa blindé ko ñu plus de 500 nervis mu ngeen def kii te tàppetam moo tax muy def loolu. 500. plus de cinq 500 nervis ñu ngi baobab mu pointé leen ci angle bu nekk dara war ko dul tàppetam pour wala ne amul fit li muy def yëpp day booy ay booy yu mu jël lay. parqué leen mairie ba di jox ñuy naan di leen jox ñuy tux ñuy def sale boulot am na benn waay mu def je vais me citer son nom joxe naa ay image am fii moom sama sama image man ko boo yëpp pour boo yéex ne xamuñu ma xam am na booy dëkk ba am na dëkk ñu baax xamuñu ñu xàmmee ma. mais ñun li ñuy def ragaluñ ko te lijjanti wuñ leen sax. yàlla xam na ne ragaluñ te lijjanti wuñ leen. te li bugguñu juum quoi li la wax tout à l'heure bugguñu bugguñu jaawal suñu xeex ñun bari na adversaire suñu ñun Sénégal lañ ko seekal dañoo am un projet am loo xam ne dañ ko war a wuti dans un avenir très proche muy la majorité à l'Assemblée nationale loolu mooy suñu combat ñun loolu moo ñu mm-hmm. moo tax bëgguñu répondre à la provocation mais si ça continue ko dinañ ko wut ci terrain boobu noonu mm-hmm. ça jërëjëf macha loolu moom defe naa ni li nga expliqué ni ministre de l'intérieur euh, dégg na ko te it war nañ ci bàyyi xel balaa yëf yi euh, di ëppi loxo waaw yéen seen mouvement bi euh, dafa tas bu Karim bi nitu dëkk parce que man fi mu toll nii dafa mel ni seen wax yi dafa woroo léegi gis-gis yi woroo mouvement nitu dëgg euh, dafa tas. daanaka parce que man ñi ma xamoon mouvement nitu dëgg yëpp mën naa ne quatre-vingt-dix pour cent ba sax am na beneen mouvement bu gaa yi bëgg teg waxtaan nitu dëgg yi génn nañ bëgg teg beneen mouvement di ci waxtaan mi ngi en gestation. Hmm. temps nag campagne moo xoo freiné liggéey bi affaire yooyu mais commencé woon nañ loolu. parce que ñi nga fekkoon dégg ñu bëri nga xam ne ñu ñoo teewoon léegi lan moo tax problème am discours yi Karim amee. wa illah dafa amul démocratie ci biir moom. non ñun Karim bi ñuy ànd ak moom sax parce que cofeel bu ñu amoon ci moom la quoi. Mhm. amoon ci moom cofeel amoon ci moom tamit xam rek gis bëgg bu mu bëggoon Sénégal ni mu doon taxawal Sénégal. Mhm. ak coono ñu ci doon daj moo tax ñu nekk ci ay wetam di ko défendre. Mhm. parce que gëm na tamit ni njëriñu senegal la. loolu moo ñu boole Karim ñu nekka moom ci liggéey boobu mais bi ñuy nekkoon ci liggéey bi yëpp Karim ku ko xam-xam ne du koy déglu soxlawul xelu keneen. dafa doyloo xelam. Mm-hmm. ñu d'accord ñu bañ a d'accord lu mu da koy def. Mm-hmm. teewul ñu ko doon soutenir mais dem nañ ba situation tool foo xam ne amul benn nitu dëgg bu la ne man man man man maa ngi comprendre Karim ba léegi ba ci suñu groupe WhatsApp bi sax bu waxee man amul kenn ku ci kuy ànd ak ci ay position mm-hmm. loolu benn la man nag même loolu sax dama ko doon baalu quoi parce que cofeel bi ci moom la. Mm-hmm. mais li nga xam ne mënu ma ko baal Karim te mënu ma ko comprendre parce que loolu rek la laa gis ne Barthélémy Dias xaw ma na ko mu may metti mm-hmm. mu su ma toogee dégg Karim defan Barthélémy Dias loolu su ma gisee moom dama koy muñ rek mais dama ciy am daf may metti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg parce que dama naan est-ce Karim la ba léegi. fi nga jaar ak Barth te dara ump ko. man dama naan est-ce que c'est la même personne kii laa xam kii laa doon côtoyé mais Karim xam na lépp bien avant sax dugg kaso bi ay deux mille vingt un deux mille vingt deux mhm. dama ko doon expliqué si gestion Barth ni ko war ko wax Barth mu nekkee waay Karim xam lépp moo tax bu ma bu toogee di defan Barthélemy Dias man duma ma comprendre quoi du ma comprendre mais Karim lan mooy yow mi nga xamante ne bii bon vraiment yaa ñu gën a jege Karim yaa ñu gën a maîtriser Karim mooy problème am ak euh, nguur gi non man lenn comprendre mas naa mas dem ko yaa comprendre ci Karim. Hmm. Karim bëggul unanimité. bëggul unanimité. Hmm. même ñun gis nga au au sein du monde dëgg ci bureau bi nii bu ñu doon discuter nii ba benn euh, groupe dégagé wu ne di la ñuy def. waaw ah. Karim du far ci groupe bi bi bi majorité bi mukk loolu mën naa ne caractère am la te dama ko ko nangul amul problème te li mu wax da ngay gëm ne loolu la gëm quoi moo tax mu wax loolu noonu def ko ndax lenn mais période bii moom. du Karim bi ma xamoon laa gis muy wax ba léegi parce que li muy wax ci Barthélémy Dias yëpp moom leer na ko ne waxul dëgg dara du ci dëgg. Hmm? li muy wax ci Barthélémy Dias. Ah. am na yàqin li wax du dëgg parce que bu taxee naan ay vrai débat bi Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko Karim xam na ne waxul dëgg. Karim sax moo génn du dëgg. moo la daax <laughs> non Karim moom. instant moom moo génn ci mouvement bi. waaw moom quitté na quitté na quitté na groupe groupe WhatsApp mouvement léegi mouvement nitu dëgg moom mouvement citoyen la woon. Hmm. léegi yéen ngeen bokkoon ci. ñu jëm ci législative yi yow si je comprends bien kenn investiru la ci liste Pastef lan moo tax radicalisation bi nga génn ci mouvement citoyen dem adhéré ci parti bi. non du dama génn mouvement citoyen dem adhéré ci parti bi. parce que mouvement citoyen terewul la nga nekk ci parti politique man j'allie les deux. ah ba tey yaa ngi ci euh, mouvement nitu dëgg. non mouvement nitu dëgg sax instant mën naa ne existé tout. Ah. groupe WhatsApp bi Karim quitté na groupe WhatsApp bi message. li fa newoon nga xam ne ñoo doon sookul bi yëpp jóge nañ fa. lu la indi Pastef sa engagement man Pastef depuis 2019 la am carte moom Pastef. boobu fekk na yaa ngi ci mouvement. ni waaw depuis 2019 la am carte moom Pastef. Mm-hmm. léegi lu tax falu leen keneen ginnaaw Karim moom quitté na groupe ba. waaw mais xam nga warta tas warta tas groupe bi. non Karim lan moom lan la woon ci groupe bi moo nekkoon njiit li wala. waaw c'était le coordonnateur. waaw léegi boo xam ne quitté nga ko coordonnateur kenn léegi est-ce seen biir. moom balaa ma créé groupe bi sax moom laa la soo ko lu dëgg ñi nga xam ne borom du parce que li ñu dëgg ni seen mouvement non ñun ak Macky Sall mënu ñu parce que amuloon papier on juridique quoi dëgg les valeurs waaw ok ñi yoroon su soog nitu dëgg bi nga xam ne boo doon dugg balaa ngay adhéré nitu dëgg dafa mel ni groupe bi nga doon njëkk dugal boo fa duggee ñoom ñoo lay wax règlement règlement intérieur groupe bi statut ak yooyu noonu li muy bëgg li muy bañ ñi fa nekkoon ñëpp nga xam ne ñoom ñoo moo naa ñoo doon ñoo doon bi quoi ñoo doon sookul mhm. ñëpp quitté nañ nit dëkk léegi ma dellu si waat un peu ci Barthélemy Diaz sànq maa ngi la koy laaj di la takki ne nga naan ma eh, demeewul noonu euh, dañ ni euh, parce que loolu la ñuy circuler dañuy wax ni yow ak ñi nga àndal da ngeen di bind ay pancarte ñëw taf ko ci buntu këram xamu buntu meereem loolu c'est avéré wala. non du buntu këram. fan la man j'habite la Sicap Baobab. cinq cinquante-huit la sama maam jënd kër Baobab sama yaay Baobab la juddoo ma juddoo Baobab kon booba Barcelona bu ngand na lool pour Barcelona mun ko moom mën nga taf fu ne booba mën nga taf cent kii booba te doo taf buntu këram booba am na plus de mille maisons cité célibataire bi rek ça fait neuf cent maisons si cité bi rek cité célibataire bi hmm. kon mënuñu ne nga taf dara booba da nga ah, ko def kër Barthélémy Dias Jean Paul Dias maa ko nuyu de passage fi mu dëkk moom hmm. këram hmm. la bind Sonko taxu ko keneen ak keneen nekk këram. ku nekk sa buntu kër nga def. mu ngi noonu. kon lu mu jotee buntu kër Barthélemy Dias loolu. kat moom du ba boobu la ñuy wax. quartier kon tafu leen buntu këram. tafu kenn taful buntu këram. waaw dama bëgg mu leer rek. d'accord man euh, damay ñëw si seen plainte bi ngeen defoon ndaxte seen coow ak Barthélemy Diaz yamul rek ci coowal pancarte yeeg campagne bi gis nañu tay li ci ginnaaw ngeen bind ab plainte boo xamante ne nii ab suuf bu ñu jagleloon askanu Baobab foofu. Mermoz Mermoz Sacré-Cœur Mermoz Sacré-Cœur boulangerie jaune voilà euh, pour euh, ndaw ñi mën fa am ay air yoo xamante ne nii. air mën di dem di fa di fa di fa foo. mais dañu gis ni suuf si dañ ko jël jox ko yeneen i. Euh, ay privé Auchan ak beneen sant ay ni mel léegi après ngeen dem jooytu ko fële ca OFNAC ba ngeen demee déposé mbir mi ba tey est jot nañ leen contacter pour wax leen affaire bi dina am suivi ou pas. amagul avancé mais ñun on va pas rester pour ma préciser aussi combat bu woon combat sax bu bu daté d'aujourd'hui depuis 2009 avant Bargny di nekk maire am na soxna tam muy nekk maire la amul buggoon jox terrain ay privé waa koñ bi du mënee ak moom combat bi Barth ñëwee tamit nekkaat ci yooyu gars yi di xeex ak moom di xeex ak moom les conseils de quartier bi foofu nga xam ne ñoom ñoo représenté population bi ñoom ñoo doon mën a combat bi sax mais Barth comme qu'il est sournois il a su euh, dévier le le conseil xool ñu fa nekkoon xam ne ñoo doon tête de yi ñenn ñi mu jox ay marché ñenn ñi mu récupéré la ci maire bi après ñoom ñu doon wax xeex ñu bàyyi xeex noonu la profité jox ko jël terrain bi loué ko benn waay bu ñu naan tafaa xaw ma Tafa je sais pas 33. am na aussi ñu ay genre cantine bâche weex yi foofu aussi ci la bokk. waaw mooy Auchan bi rek. ci Auchan bi nekk rek la ak centre commercial bi léegi. ok moom ngeen fi doon jàppanteeg moom ay temps la voilà. combat bi comme xeex bu yàgg la yàgg na mhm. mais ñi doon porté xeex bi ñoom la jënd ñi mu jox leen ay marché si mairie bi parce que am na benn euh, je passerai son son nom mais da ko jox marché caakiri à l'école pour que chaque matin xale bu ñu ñëwee école. mën ndëkkee caakiri un marché de douze millions mais ba léegi booy gisuñu soow mooy marché gré à gré yi mi def di may gaay xaalis ñeneen ñi caakiri <laughs> ñeneen ñi noonu mu marché ñaata la mu am fu ñu jaar ak ñoom douze millions pour caakiri waaw mais yéen Auchan bi ngeen ah, di wax ni doon ko xeex ndax ndax tey jii Auchan ñi nekk population environnante yi foofu ak yeneen nit dañ fay ñëw di di di di faj seen i soxla di jënd yeen soxla tey jii bu ngeen xeexoon ba ñu jox leen dëgg jële fa Auchan est-ce que du porter préjudice la population de Mermoz Sacré-Cœur ah, ah, attends je hmm. euh, foofu bar suuf si hmm. dañ ko dañ euh, bi ko sikaab suuf sikaab la SICAP bi mu koy décerné commune bi. Mhm. da ko décerné ci kii bi nu mu tudd. droit réel bi da ci def lu mhm. leer. espace public la à vocation publique. li nga xam ne daal vocation publique rek nga ci mënoon def. Mhm. même Auchan bi mu ñëwee sax c' était un peu parce que boo xoolee Auchan bi. li ñu fa defar. waaw c' est précaire. Auchan bi si si benn une de temps. mën nañ ko fa tëbal. parce que du bâtiment. mais ah, construction. laay wax quoi d'accord parce que des fois gis nga yenn yenn zone publique yi mën nañ la mhm. mën nañ ko jox privé. mais pour un usage précaire. nga xam ne saa su ko askan bi soxlawee rek. dañ day jóg mën waaw day jóg. moo tax Auchan bi sax nekk. benn ngan di dofu centre commercial. sa sa commercial. centre commercial bi. waaw beleel couture la. Hmm. ñoom ñoo ko moom. beleel couture waaw beleel. ñoom umpale ñu Marième Faye Sall mi ngi ci ginnaaw. moo tax xeex ba tout wu ci ci mur. parce que mën naa ne maire bi la woon il n'était pas avec le hmm. mais ñi mu ko jox tamit c'était le pouvoir aussi. Hmm. moo tax ñun population bi su euh, ak nguur bi fi nekkoon mu ngi ñëwoon percer parce que ay borom doole dañ koy xel quoi. d'accord mais bay naa. moo tax nag période ko relancer parce que gis nañu ko comme nguur yi changé na ñu relancer ko. pour xalaat ci am gain de cause. mais bay naa damay bëgg a dellusiwaat ci campagne électorale bi euh, yow miin nga Barthélemy te yàgg na Sonko même bi mu ko jàppale yow àndoo ci woon maanaam yow mosoo ànd ak Barthélemy. Hmm. tey mu mel ne jamono jox na la dëgg parce que tey jii mi mooy opposant bi gën a féroce contre Sonko maanaam yamul rek ci saaga mais lépp lu mu jàpp ne mën na naqadi Sonko rek Barthélemy da koy def. dem Sonko posé benn question boo xam ne man mos naa fii. mooy ñooñ ñëpp lan la leen Sonko def maanaam man yëguma ko Sonko nee na yëgul lu mu leen def pour yow lan mooy problème réel entre mi ak Sonko te koroog ñu ngi dégg kii nu mu tudd waaye le basketteur la Khoureychi Khoureychi ne yàgg na bëgg a jot Sonko mais dan ko tëjal bunt yi est-ce nekkul loolu moo tax muy xund pour yow le problème lan la réellement parce que yow yàgg nga bañ diggante Sonko ak Barthélemy ñu ànd. waaw Barthélemy Dias c'est un politicien et que rek la yaakaar pour survivre. sans la politique il n'est rien que waraan nga kon moom instant issue de survie la kii instinct de survie am moo nekk di wax fi mu toll nii parce que xam naa ne instant il est en déclin day day day politiquement il va mourir léegi nag li mu njëkk tenté tenté na la négociation mais li mu def proche moo ñaaw parce que li tubaab bi sax naan la on ne tire pas sur une ambulance bar loolu la doon def parce que bi Macky Sall ñaadee moom ci dafa bokkoon ci bugg ñuy waroon rendi bi Macky Sall ñaddee Sonko. waaw parce que ñi ñëpp umpale woo leen benn période Sonko nekk ci kaso beeg affaire yu bari di wax lu ko neex. Mm-hmm. naan il va pourrir en waaw. ay année ñoo doon woote gatsa gatsa ak lu ne. Mm-hmm. Sénégalais yi ñooy ñooy ñooy seede moom moo ñu ko def conférence euh, conférence de presse attaqué Sonko ñëpp ji yéemu man bu jour li ma ci appel bu xam mu toll. Mm-hmm. te Sonko leen rek la wax. Sonko leen rek la wax bari na mu metti ko te tuddul turam ba léegi. bi ma naan am na ay li am na benn leader politique bokk yeewi bu Macky Sall wax ne Sonko def moo ci première instance. dinaa ko ko deuxième instance. Sonko adressé wul turam ba léegi waxul turam ba léegi. ndax xam na vous vous rappelez de ça. oui yaa ngi fàttalikoo conférence bi mu def mooy ci ci jugement Mame Mbaye Niang bi xam nga première instance. waaye dafa coupé le pouvoir en deux. waaw fayloo Sonko deux cent millions. mais tëju ko loo xam ne de mën mën na mën na laal éligibilité léegi nag ci la woo ci la Sonko def point de presse na waaj ne dama bi may ko def instant wax na ko benn leader Yewwi benn leader Yewwi la wax. Bart n'a pas signataire mën naa ne les dix millions Sénégalais xamuñu kan la Sonko di wax. Mhm. da ngay xalaat ay Khalifa Sall Déthié Fall wala lu réew mais doo xalaat Bart n'a pas signataire te quelque temps quelque période de temps avant Sonko waxoon ne Bart n'a pas du leader. Mhm. kon su ñu nee benn leader Yewwi kenn du xalaat Bart. mais mhm. comme que Bart moo doon def sa moo doon def game boobu noonu dem ci Macky di wax dem kii di wax mais tout en croyant qu'il est plus intelligent que tout le monde bi da ko def je sais pas ndax su ma suy. nga xam naa Balla da doon wax ci suuf def ci suuf affaire yooyu noonu mais Sonko moom moom daa ko ne Barth nitam la quoi. que Barth dafay dem ci Macky Sall sax boo xam xamee ni ñëw waxu ko. bi Sonko waxee ci penc bi nag ci la Barth am devoir de redevabilité envers Macky Sall pour won Macky Sall yow laa àndal est-ce que comprendre nga. xam ndax su ma yom fay saisi. nag moo tax bi ñuy lendemain moo doon kii bi bi ñu defee sentence bi. Hmm. bor mu la doon fay Macky Sall noonu moo waral conférence presse mu def ko rappel attaqué am Ousmane Sonko frontalement nag pour wan na Macky Sall carrément que man waa bàyyi naa ko maa ngi ak yow parce que tamit dafa bëri ay casserole moom. yow yow waa ji da kaa xam. kan noonu ah, yow xam nga parce que bi nga ne damay taal maanaam bu laalee kenn ñu taal këram après da nga génnaat nga ni ay nit neenaan la mën na sax dem taal këram jiñ la ko pour bëgg la dugal nga ni dëkk bi am na justice ñu teg ci ay fan rek diggante mag Abass Fall attaque bi amoon ñu taal permanence su taxawu. sa wax ja ñëwaat am ñu naan est-ce que loolu bay naa waxoon moo am. man de duma bett parce que xam naa ne pour survivre dëgg te instant bii nii nii. Hmm. dafa dof parce que am na am naa ñu ko jege ñoo xam ne ñu ngi jox <laughs> n'a plus tout sa tête parce que xam na ne fii ñu jëm la 17 day bàyyi politique moo tax il est en train tout pour. gars dañ ko yóbbu retraite lenn lay carte fi mu toll nii. Hmm. devenir le chef de l'opposition parce que xam na ne en état de l'opposition mën na am benn unité politique bu loolu nag mooy problème maanaam bu seen coalition ëppee député waaw waaw naturellement mooy nekk la voilà ba pare sax defe naa am na par rapport ak charte réew mi chef de l'opposition ay a am affaire yooyu noonu mais loolu gëm nga ni bu bu bu nekkoon deuxième waa Pastef dinañ ko voté assemblée duñ xaw jàllagul xaw ma ndax seen voté xam am na ay na ko fi mhm. xaw ma ndax c'est promulgué loolu la parce que bu bàyyi politique day bàyyi mën naa ne amatul kii. Barth benn tool la am ak xaar xanaa alal bi mu jor kii te dina dina dina fay. balaa balaa ñoom élection. am na tool am na kër sali am na village sali léegi am na xaalis. kon yi muy wax naan amul kër kër papam la ne day day dóor quoi. Barth c'est un milliardaire. mais Barth c'est un très grand fournisseur de l'Ocha euh, à Ocha. bi ngay gis lu bëri moo leen koy fournir. Hmm. ñun suñu commune am na. quatre Ocha dafa am xam nga tool. Hmm. suñu commune am na quatre Auchan te ñun ñëpp umpale woo leen RSE responsabilité sociale d' entreprise. Mhm. yi ñu war a def ci commune bi. bari yi ñu war def ci commune bi doxee dagg gis nga parking yi fa nekk. Mhm. di ko jëlee école normale dama Sacré-Cœur mhm. am na plus de une centaine de parking yooyu yëpp du jaax perception ay business am la moom. mais yéen lan ngeen lan ngeen hmm? am lu dëgër loo xam ne da ngeen ko téye ci Bart ba mu jaral ko. bëgg nekk li ngay ah. ko. est-ce que yow am nga bu ñu la ci attaqué woon. bu ñu ma ci attaqué woon ma dem ba ci ñi nga xam ne ñu ngi fay. Ah. ñu tracé xool naan la ñuy fay ak fi ñu fay li ñuy fay fu muy dugg ñun suñu suñu suñu budget commune mën na dem ba 6 milliards suñu commune mooy troisième commune bu ëpp ressource si commune si si kii mooy Massalika budget bi deful bu defee 1 milliard quelque ci lay am. Hmm. li def fan lay jaar. foofu Amar. bay naa looy tëjee. waaw li may tëjee rek mooy li am léegi léegi. parce que neexul tamit nga nekk ay nit liggéey ak ñoom ñu leen waaw neexul ci xol. bu ma jógee fii léegi pour jëppal laa jëm naa woo boobu ñu tase fa. mais xeexu léegi bi nga ne nitu Barth yi ñoo dem attaqué kooku këram. mais boo toogee di nga dégg boobu di saag di wax loolu. ok boo leen demoon léegi-léegi mairie boobu ngeen xool situation xool nu mu dem moom du yoon moom. moo fa instant mairie centre d'hébergement de bandits la. jëppal nga jëm nga ni da ngay dem. damay dem ànd ak booy mu porté mu déposé plainte te dinañ dellu boobu parce que moom moomul baaw bàyyi moomul baawam te ñun mënuñu te dugg baawam non moom gis non daw booba du dama damay ànd ak booy def porte rapport dañuy ànd dem taf ay affiche biir booba ko ñu ko dañ jàpp dañ nekk ci dëkk xam ma fi nekk te violence du jëriñ kenn du ma jëriñ du ko jëriñ du jëriñ askan bi ñu dëkk lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé mooy ministre par rapport ak situation bi prévalable bi booba parce que mm-hmm. mënul wéy merci bay naa Guèye ah, doom bàyyi ñu koy jaar bu baax. Euh, saa yi nag du ragal nag maa jigéen <laughs> ñu koy ñaanal suñu borom sàmm ko ngeen sagal seen kilifa le président de la république comme jàmm la woote ci ñëpp rek na ñëpp wuy ji ci jàmm ji ñu dem élection ñu dem élection ci jàmm ku gañe réew mi gañe incha allah ñu jàll ci leneen ajarat